commerçant yi jël nañ seen responsabilité di xool sen stock di retirer avant ñu leen di retirer produit yi nga xam ne ñoo impropre à la consommation bu boobaa lay gëna contane chaque année ma gis ne quantité baa ngi yok ba destruction dootul amati parce que bu ñu détruire bu ñu fàtte ne am na loo xam consommateur bi consommé nako parce que mom itam amul instinct bi nga xam mom la war am di ñëw bala muy jënd mu xool produit bi ndax dat bi jeex na wala composition produit bi méngoo nag li mu bëgg loolu kuy jënd war nga ko mun a def sa nganaay ñi nga xam ne da nga maam ñooy commerçant yi tey bëggoon naa tey tey ñu mel ni UNACOIS nekk si site bi nga xam ne bu ñu fi jógee ñu dem sensibiliser commerçant yi ba yi nga xam ne da nga maam ñoom lañ retiré si ñoom di leen alamaan dootul amati corps de contrôle bi nag may ñaan ñu gën leen dooleel parce que du Ndakaaru rek mo fi nek Sénégal yépp dañ leen wara protéger donc ñu doter leen en moyen matériel et humain ba nga xamné consommateur fi mu tollu dina sentir ne am na koo gannaaw mom mu ngi veillé ci mom mais amna na keneen ku ko secondé di veillé ci mom